ndigalul sëriñ muntaxa mbàkke khalif general des mourides sëriñ basiru mbake anta khalif mam maam cerno ibrahima fatim mbake sëriñ seex fat ndjay la njaay ma pati si la diwaan kilifteefu sëriñ mudu kara sila la xalif sëriñ seex si la ibnu sëriñ seex sila diwan di len yëgal bisub magal cant ak ñaan ba mu baxo defal way juram sëriñam soppeem sopem seex si la diwan ibnu seex ma pati diwan la murid sadix ba aljuma ñaar fukki fan ak juram ñaar ci wéru janvier 2023 touba daru marnan ancien garage kër sëriñ seex sila diwan diwaan en face résidence qadim rasoul xëy jang alquranul karim qasida salatu ala nabi bi ñaanal ca sëriñ Seex si la diwaan ak way juróom ba Seex ma parti si la diwaan jullit yi dawlu 14 heures julli bernde takkusaan ga daañu waxtaan ci diine soññante ci bokk dund jaar jaar sëriñ Seex si la diwaan ibnu Seex ma parti si la diwaan ci soxna May si la mi taawub sëriñ Seex si la diwaan ba ci soxna Wali si la jullit yi taalibe yi Seex si la diwaan ibnu Seex ma paate waaju ko xam bisam ba doo ko wuute ngir Seex ma paate bay ba jëwriñam ja Ceerno Ibra Faati yal na ko yàlla dolli leer ak njëgal lu mébatoon na ko njaboot gi sottal Seex si la diiwaan tooge ab jataayam wuutu ko wuuf njaboot ga doon baayam xam-xam ak xel taalibe ak wilaaya di jàng tey julli di xëy ca tool ya na yàlla ful ngërëm ya dolli koy leer ku teew ca bis ba yàlla far sa bakkaar la qualité fait la différence